mbokk yi dal leen ak jàmm wiiri wiiri jaari ndaari Bougazelli jaare na si kanamu gendarmerie ni ki tey buñ sukkandikoo si yenekaay bi nga xam ne moo di Les Échos Seydina Fall ginnaaw bu mu njuuyee ñi nga xam ne ñoo di gendarme yi si ajuma ji dina dem wuy ji ñoom ñooñee ci section de recherche bu Colobane tey ji ci altine ji Seydina Fall bu sàgganul garde à vue lañ koy ngàdd teg ci defeere ko ci kanamu procureur moom procureur ci boppam moo war a doxal bu ñu sukkandikoo ci enquête yéene kaay yi ndaxte li nga xamante ni bii moom la ñuy toppee Bougazelli di mbirum faux billet dëgg-dëgg procureur képp moo ci mën a àddu ndaxte noonu la procédure pénale bi daal di tëddee bu ñu sukkandikoo ci yéene bi nag ab burkinabé teg nañ ko loxo ci mbir mi juróom benn it ñeneen ñi nga xamante ni bi ñoom lañ jàpp ne ñoo doon ànd ak Bougazelli ci mbir mi it dinañ leen defeere ginnaaw nga xam ne jeex na tey yéene kaay bi naan Seydina Fall Bougazelli moomee am nañu naan gis nañ ko ci samedi ji ci libération naan demul fenn mu ngi woon fii si diwaanu ndakaaru ndaxte ñi nga xamante ni bi ñoo di gendarme yi si benn clinique lañ ko fekk moom moomee mu naan dafa tawat dafa am hyperglycémie maanaam suukar sa moo yéegoon l'observateur mel ni kuy bind roman naan Bougazelli bi retour à la gendarmerie moom ne moom Bougazelli dina delluwaat ci gendarmerie bu sàgganul àttekat yi dinañu damm ay laafam damm na ab loxoom ci biir Cap Manuel ba mu nekk moom Hissène Habré bu ñu sukkandikoo soxnaam si nga xam te ni bi moo di Raymond Habré ci biir Vox Populi mu ngay nettali naan boroom këram da ko woo ci samedi ji ne ko dafa daanu ginnaaw ba loxoom daal di damm foofee sa prison ba muy wax naan borom këram mi dafa taw a yu métti yi ñi nga xam te ni bi ñoo di administration pénitentiaire xam nañu ko ko bañ a hospitalisé ngir bañ bës nga xam ni bi moom la nar a jur ñi nga xam ni bi ñoo di ay ngay woo ñi nga xam ne ñooy xeex ngir ak yelleef doomi aadama ak journaliste yi si altine ji si kanamu Cap Manuel si biir la tribune ñu fekkaat fa Fatima Raymond Abré moom mu ngay gën li nga xam te ni bi loolu lay wax mu naan wér-gu-yaramu borom këram sotante lool li nga xam ne noonu lañ koy fajee tey na xel te jàpp na ne ni ay paracetamol képp lañ koy xol mu jàpp ne lobby maanaam loxo bitim réew dafa dugg ci mbir mi te ñu ngi samp laaj naan réewum France xanaa dafa am lu mu jàppal ci seen abré réewum France ak réewum Sénégal seen lëkkaloo dafay mel ni mu ngay gën a neex bu sukkandikoo si yeneen kaayu ànd bi nga xam ne moo di la Soleil mu ngi naan juróom benn accord la ñu signé diggante réewum Sénégal ak réewum France tax nañu delloo si jaasik El Hadji Omar Foutiyou taal yi nga xam te ni bii France ñoo ko téewoon jamono ji delloo si nañ ko fii Sénégal waaye tamit am na yeneen patrimoine yoo xam ne fas yéene nañ koo indiwaat si réewum Sénégal ñi nga xam ñoo di waa kër El Hadji jàpp ne am na téeméer ak fukk ak juróom ñaari téere yoo xam ne El Hadji Omar moo ko bind te mu ci loxoy tubaab yi war nañ koo dellu siwaat si biir Sud Quotidien Macky Sall naan jekk nañu ngir daloo bépp patrimoine boo xam ne réewum Sénégal moo ko moom ki nga xam ne moo di premier ministre bu France di Édouard Philippe moom mi ngi naan jaasi ji di jaasi El Hadj Omar fii mooy place delloo na leen seen place tegal leen seen ànd ñoom cadre APR yi président de la république ñoom ñëpp di leen soññaat di leen wax ne dëgg-dëgg li leen war moo di ñu boole seeni i xol boole doole ndaxte moom lu yàggul dara dina fi jógee muy mel ni président de la république mu ngi indi ay leeral ci coow li nga xam ne moo fi jugoon ci ñetteelu mandat président de la république di wax ne góorgóorlu leen ndaxte léegi ma jóge fi si biir boobu leen daje nag la yéene kaay naan président mu ngay menacé dëgg nag di xupp ñi nga xamante ni bi daanaka ñooy doxee ak seen bakkan fii ci biir réew mi tax mbalit mi di jàllaañoo ci biir réew mi def lu la neex ak laxisme dëgg moom la Macky Sall seetlu ne noonu la doxee jamono jii te loolu nag nee na fii ak atum 2020 lépp dina dakk ndaxte bu laajee ay sanction wala weñaar loxo yi ñi koy defit dinañ ko def ndaxte lii bu ñu wéyee di ko def fii ak atum 2035 tàllal loxo di yalwaan duñu ci jóg yalwaanuñu dañoo fuqaati li nga xam ne moom la ñu moom ñoom gayndey Sénégal yi nga xamante ni bii doon nañu dajeek niki démb bouclier du roi di waa Eswatini ñeenti bal si benn lañ leen dóor si segg ñi segg ñi nga xam ne ñooy dem si Coupe d'Afrique 2021 bu Cameroun Famara laa nag la Sénégal jàpp ne mooy star bi dëgg ndaxte moom dafa triplé ñetti bal la dugal waa Eswatini Pape Alioune Ndiaye moo dugal ñeenteelu bii bi source aanaan Krépin Diatta ak Famara Diédhiou kay ñoom si boppam ñoo toj match ba dëgg jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg allah